liggéeykat yi nekk fii ci mbëbës léegi nag am nañu seen syndicat bi affilié wu ci CNTS li tax a jóg syndicat bi mooy ñu défendre seen ak ak yelleef rawatina seeni intérêt tey jii boo waxee modernisation forcément di nga wax ay jafe-jafe parce que mu ay nit aussi mënoo leen fekk fa ñuy liggéey nekk fa plus de trente ans une cinquantaine nga bëgg a ñëw toxal leen fa ci ay milieux yoo xam ne ñoom mënuñu ko comprendre loolu ay jafe-jafe la moo tax ñu ne nañu constitué en syndicat comme ça ñu mun a défendre suñu su intérêt travail liggéeykat yi fi nekk yëpp. fii ci décharge bu Mbeubeuss ñu bari ñu ngi fi ñëw di daani seen doole liggéeykat yi nag ñu ngi ñaan état bi mu accélérer mise en œuvre projet Promojet bi. parce que nag ñun lu sonnaluñu état. on est des milliers dans cette décharge ñu ngi ay milliers de personnes la ñu nekk fii ci décharge bi di fi donc état bu demee ba bëgg a war a moderniser décharge bi newuñ bu ñu ko moderniser da ko war a moderniser parce que ñun voyagé nañu un peu partout dans le monde xam nañ ne dafa am loo xamante ni mooy lii ami ji mooy que ne foog ñu def moderniser tous les décharges ñu bañ a bàyyi décharge yi rek mu nekk ay décharge sauvage bi ñu sukkandikoo ci kuréel bi ëmb récupérateur ak recycleur bu Mbobos lu ëpp 2000 personnes ñu ngi fii xëy di daane seen doole.